Deel Dior numéro 2 ak Papa Socé écurie kay baax ñaari mbër yaa ngay lépp loo Ngel Dior numéro Papa Socé moom nga ma nga lu ay eh, poisson doon na déedéet dalul da cos loolay cos tiital fuuxal ñaari mbëree ngay leewtoo fa paasoo see dërëj bopp bi ngeen jon moo leen ñun xale nga mu dee songo songo saw fa paasoo gan moor man waaye làmb ji mu ngi tukkee fu nekk moo ngi neexee fu nekk ñaari mbër yi ngi bëre ñaar bu ndaw moo ngi baaxu ah eh, waaye adul bu jiwal kenn du moom cey bi combat déggal moom dégg moo neex lii ku amul dégg-dégg doo xam lu muy wax ñaari mbëri ñu ngi si combat bi ci diggante Guédiawaye numéro 2 ñoo ngi dama tey baaraam pour di dina am moo koy forcé teg ko si dënn bu ko plaqué bu mu topp ko daan na ko waay waay Guédiawaye daan na ko Papa Sossé jël bi si fa teel jóg nañ waaye lii daal waaw nee ma xoolal ko caméra bi maa ngi lay xoolal caméra bi jërëjëf